di jox man Sonko ay fiche de parrainage ndax lan ndax bokkul ci euh, li nga xam ne moom mooy fichier électoral waaye itam ñu gis ne la Sénat jamono ji ku ne xam ne ne am na article boo xam ne surtout article 6 euh, jox na ko li nga xam ne mooy prérogative waaye itam pouvoir yoo xam ne mën na jël ay responsabilités am ci li dal Ousmane Sonko Sénat mën na jël dem jox Ousmane Sonko li nga xam ne mooy ay fiche de parrainage waaye tamit jox ko euh, li nga xam ne moom mooy clé USB ak lépp loo xam ne rek loi bi santaane ko ngir mu dem wuti ci li nga xam mooy ay parrainage est que kon jamono ji euh, mën naa ne xel du dal ci kanam côté Ousmane Sonko. waaw xel mën na ci dal waaye tam xel itam daanaka mën na ci ñàkk dal. parce que euh, buñ gisee pratique wala bëgg yi nga xam ne ñu koy doxalee ci mbirum Ousmane Sonko. daanaka mm-hmm. da ngay sentir ne. tegootuñu ci droit ak i loi dafa tegu rek ci mathéisme goo xamante ni kenn mënul am sax maanaam benn mot boo xam ne mën nga ko voilà kenn mënul xam noo koy tuddee parce que euh, da ngay sentir que ne dafay doon benn adversité adversité boo xamante ni mm-hmm. ni ñuy combattre ak moom soxlawul ñuy dem di wëri benn article soxlawul ñuy dem ci code pénal soxlawul ñuy dem ci code électoral soxlawul lenn parce que mm-hmm. ki nga xamante ni ñëw na ngir euh, bañal la fiche de parrainage yooyu te fa ma ko sukkandiku moo di ne yow dañ la génnee ci liste électorale mm-hmm. te fekk liste électorale moom ci boppam xamal na boppam xel ne fa ñu teg wala boo fa ñu sukkandiku ko ne moo la ca génne mooy attewu contimance contimance mhm. bu ñu ko toppee dañuy gis ne tëb na kon yaa xayti lan moo fi desati ba war a tax ñu yegsi ci li nga xamante ni mooy li ñu toll nii mhm. mathéisme képp lañ ko mën tuddee amul leneen lañ ko mën tuddee léegi nag euh, boo xoolee comme ci Sénat euh, benn jàngat bu gàtt laa ci am mooy que li mhm. yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne nit ki bu dee bu dee dafa génn àdduna euh, ñetti yëf dafa nekk loo xamante ni day kon ne di ko jëriñ ci biir bàmmeelam xam nga olof dafa am lu muy faral di léegi lu loo xamante ni du dëgg waaye tam itam méngoowul ak njàngaleem yonent bi mooy njëriñ loo fekkee dëgg la la njëriñ la fekkee maanaam ñun ñëpp dañ koo gëm daanaka sax suñu administration wala boog tam ñi nga xamante ni ñooy def politique ku ñëw gouverne di gouverner. Mm. da nga daanaka da ngay sentir ne day liggéeyee liggéeyin boobee wane ne li nga xam ne moom mooy diiru li mu fi nekk ci lay eh, aar boppam sàmm boppam. Mm-hmm. mais Sénat kan moo ko fi indi maître Abdoulaye Wade. kon nga sentir maanaam nekkatu fi. mais mais mais mais continuer di gis njëriñ li nga xam ne bàyyi woon ko mm-hmm. mooy li olof di wax foofu mooy mag dina too tëdd wala boog sax toog di seen loo xamante ni ndaw dina yéeg ci kaw garab te du ko seen amaana président Abdoulaye Wade ak fi mu jaar comme ni ma la ko doon waxee démb ci mbappatu politique euh, xamal na ko ne ko bu dee DG képp lañ fi bàyyi mu tegu waaye itam di xool fi ko euh, ministre de l'intérieur di xool loo parce que rek benn direction la bu dee moom ñoom képp la wóorul pour que ñu fi sax di organiser ay élections il fallait que ñu wutal leen ñu leen yilif ñoo xamante ni. Mhm. saa boo xamante ni daf nañ ñàkk naka sudul noonu euh, nañ leen nañ am feneen fi ñu dem mu di Sénat. di yemuñu ci loolu mais ay kilifa yu sax bu ñu taxawee def loo xam ne naka sudul noonu la am na ay sanctions yoo xamante ni Sénat prévoir na ko teg ko ngir xaar leen ci ci sanctions yooyu war a dal seen kaw kon dañuy féliciter foofu maître Abdoulaye ah, que Euh, nit ki dundam nekkul que ne li mu dund diir bi mu dund mooy li am solo. kon est-ce que du day ñëw ci expérience politique bi nga xam doon nga wax. ni ki démb ci maître parce que loolu expérience boobu li ko ko may. Ah. mooy fi mu jaar ak élection. bu wér ko ne maanaam dem nag euh, Abdou Diouf ci ay élection yoo xamante ni euh, Abdou Diouf li tax mu mën ko gagné mooy ga téye bi nga xamante ni téye na ko bépp direction boo xamante ni surtout que DG. bi organiser élection yi waaye itam téye gi nga xamante mm. ne ñaari yoon il fallait que ñu créer beneen bànqaas boo xam ne dafa tiim DGE mais boo bàyyee lépp ak DGE ñu yor seen cëggal guy lu leen neex la ñuy def et lu leen neex moom lañ ci ku leen neex moom lañ ciy jox ndam te des feeñ na kon euh, li am solo mooy homme politique yëpp ak itam képp ku ku yegg si au pouvoir mm. war nga bàyyi xel ci Sénat bi nga xam ne maître Abdoulaye Wade moo créé woon nga fexe ba ëllëg ak ginnaaw ëllëg li ñu fi bàyyi askan bi dañ fi dañuy di ci gis di gis njëriñ bu mu am du question ko rek da nga koy def pour yow parce que jàpp naa ne bu nekkoon da da ko defoon pour moom mm-hmm. da ñëw rek bàyyi DGE continuer di yilif ni euh, mu ko euh, kenn kon seena li mu jël copétition wala bokk itam communiqué bi mu génnee képp la mënoon génnee. génne sax mais Abdoulaye Wade da bañ euh, maanaam organiser ay élections. Mhm. doon moomeelu li nga xam moom mooy nguur. mooy nguur te bu doon DGE kese la kon on peut dire que ne. Euh, organiser élection moomeelu nguur lay doon. parce que bañee ci pour nga xam euh, grandeur politique bu Maître pour nga xam pour nga xam grandeur bu Maître Abdoulaye Wade ci wàllu politique ci élection rek nga koy nattee. Mhm. Sénat bi képp mu créé woon ko fi te mënoon fi bàyyi DGE. di ko mhm. def loo di ko dindi xamal nañu ne mooy mu créé Sénat ci wetam. Mm. xamal nañu maître Abdoulaye Wade ku amoon ku amoon grandeur la. Mm. beneen bi moo di élection yi ko fi wàccee. pourtant ministère bi yoroon wàllu intérieur organisé wu ko. ndax boobu société civile ak ñi doon oppo ñi nekkoon ci opposition bi. Mm-hmm. ñoo ne ko soxlawuñu bëgguñu sa ministre intérieur Ousmane Ngom di organiser élection yi wóoruwuñu ko mu indil leen Mamadou Seck mu organiser élection yooyee. Mm-hmm. ministère des sélections Abdoulaye Wade def loolu mais bi nga gis bi ñu avancé ba maître euh, ba maa ngi jub sax naan maître mhm. président Macky Sall yegg si lan nga gis président ñu ngi sàkku ngir organisation élection yi nga teg ko ci loxo koo xamante ni du nekk ministre intérieur mu ne leen du ma ko def mu ne leen du ma ko def réponse bi loolu képp la woon du ma ko mhm. def du ma ko def ñu ñëwaat ba gis li nga xamante ni moo di euh, Sénat jël dogal ci kaw DGE ngir que fiche de parrainage bi mu bay jox Ousmane mhm. e dafa mel ni léegi moom mu ngi wane ne maa la ëpp ndey ci réew mi man kumba am ndey laa yow seenaa amaana boo amul ndey man am naa ndey man am naa man nangu naa bootu ci sama ginnaaw ndey léegi nag yow amaana yow euh, bu dee am na cër yoo am ci man itam bu dee mën nga demal jusqu'au mais Sénat mais Sénat dafa am liberté totale léegi nag liberté totale boobu est-ce que dina ko may est dina ko may mu mën a jël ay prérogative am dëgg-dëgg parce que xam nga tax ah, maanaam maanaam maanaam yooyu ay article la lu lu loi prévoir la. maanaam xam nga si ça da si fay. est-ce que en personne voilà voilà maanaam parce que ñi ñu janoon bañuñu bañuñu mbirum mbirum force. bañuñu ko mhm. est-ce que bu Sénat jógoon tey jël li nga xam ne mooy ay responsabilité am jël fiche de parrainage am jox ay defee ñu seen benn kenn nit kuy collecté Ousmane Sonko fiche de parrainage da nga jàpp ne dinañ ko bàyyi noonu rek mu dem non bu mu la bett nga dégg ñu ne ñaari nit taxawoon nañ pour parrainer Ousmane Sonko ñu sànni fa grenade lacrymogène la bett. est-ce kon kooku kon maanaam dëgg la jël na li xam ne moo di responsabilité loolu kon parce que nit koo xam ne dafay exercer li nga xam ne moom la waaw après euh, ñu ñëw ne euh, a yëgg nga nekk di laaj ndax ci dictature lañ nekk wala déet ndax jàpp naa ne question boobu amul benn sénégalais bu koy laaj ci jamono bii ndax xam nañ ci la nekk ndax dictature weesuwul juge jëlub dogal mhm. ñu war ko jëfe nga lank ne doo ko jëfee teg ko ci lan am na recours buñ njortoo dugal loolu ku génn ci dictature la moo ci des dictature mën na weesu DG ñu ngi la amoo prérogative yow di taxaw ci kaw Sénat. di nekk kilifam wala boog itam di jël dogal ci kanamam fu mu foo xasee jël dogal moom bu jëlee dogal sab dogal yow konteetul. Mm-hmm. mais nga sañ a taxaw Sénat jëlub dogal nga saxaw yow di ko contredire. loolu koo génnee ci dictature ak yeneen ak yeneen yoo xam ne mën nañ ko tudd mais soxlawul ñu ci ñu ñu koy situé parce que sénégalais bi may suivre mën na lim ci ay baaraamam. yoo xamante ni ba mu ci tudd du ci jaaraat. ci ay façon dictature yoo xamante ni gis na ko. Mhm. kon soxlawul ñuy laajte loolu. kon mhm. jàpp naa ne kon Sénat am na ci ay àqam ak yelleefam mhm. ak li nga xam moo di bi mu am mën na jël responsabilité am jébbal Ousmane ak eh, ñi nga xamante ni moo di ay defe eh, fiche de parrainage ak clé USB ak lépp loo xamante ni war nañ ko soxla ci li ñuy liggéey mais bu mu la bett sena jël décision bu ni mel mu mujjee jur sax trouble ci réew mi trouble à l'ordre public way parce que ñëpp ñoo wër parrainage mais Ousmane Sonko ba léegi amuñu fenn fu ñu tegu lu ñu teg sa loxo ci loo xam ne moo tax joxuñ ko fiche de parrainage am. kon kooku kon ëllëg bu Sénat jógee jox ko fiche de parrainage am ki xëñoon Ousmane Sonko ngir que ne du bokk ci liste yi mooy ñëwaat exécuté doole gi nga xamante ni moom la kon moom moom la yàgg di jaay Ousmane Sonko ak ñi mandal mm-hmm. Sénat dëgg la am na àq ak yelleef am na itam gëdd pour def loolee te itam mën na koo def mais ndax bu ko defee dina am njëriñ wala déet foofu lay waxee mais nag ñoom bu mu tee ñu def leen nga xam ne moo di seen seen responsabilité. parce que réew mi foofu lañ toll. non loolu moom bu ñu ci yeggee est-ce que kon du ñu bàyyi régime actuel mu def maanaam genre mu def lu ko neex parce que loolu lañ fi gis bu dee euh, DGE dafa taxaw temm ne du exécuter li nga xam ne moom la juge wax juge wax mu ne dee du ko exécuter Sénat wax mu ne du ko exécuter par exemple aussi euh, bu Sénat jëfee autorité yi taxaw loolu tamit nag euh, y'a problème wax dëgg fa neex yàlla te loolu tamit yi transparente élection yi libre ce sera un peu compliqué wax dëgg fa ne te loolu tamit sénégalais yi aussi dinañ xam ne lii kat euh, nekkul loo xam lu jaar yoon la. foofu la état bi toll ak ñi nga xamante ni moo di. Hmm, njabootu Ousmane ko maanaam soxlaatuñu ñu naan leen ay dictature ngeen. bañatuñu ñu naan leen euh, fitna ngeen ngeen di teg ci kaw ñi soxlaatuñu ñu leen di wax leneen leen parce que amul lenn loo xamante ni ñu ngi ko nëbbu ci li ñuy def encore une fois homme politique da am toujours. maanaam liberté di mën a dem ak du dëpp Ousmane Sonko gisoo ko fi ñaati yoon muy génn ñu koy gaze mhm. ci loo xamante ni da doon wër di dox di di nemmeeku ji ay ñooñam ay militants pourtant dictature képp moo tax ñu ko doon tere ak di ko bañal ak di ko gaze mhm. kon moo tax kon ma la maanaam même loolu bu amee même li may wax ni ñëwagul même bu amee nekkut lu bees ci parcours politique wala boog itam ci politique Ousmane Sonko ak ñi mu jàkkaar loolu encore léegi nag dañu ko joxaat mu doon loo xamante ni Sénégal yi toujours xam nga Sénégal yi itam ak président ni ñuy doxee ak régime bi toujours dañ leen di jox benn bal euh, ñu téye ko di ci di ci di ci ñun di ree bon naan waaye lii moom yéeme na comme si que lu bees la ci ñoom te fekk amul fi dara lu bees dama jàpp ne régime bi fi nekk amatul lenn ni xeetu dictature lu ñuy mën a def lu bees ci sa bët wala boog lu bees ci bëtu askan bi amaana njàngat lu bees lay jur waaye itam fu ñu jàppoon ne amaana duñ fa yegg mais ala kulli leen lépp lu ñu fi def amaana da naan defaat la wala defoon nañ sax lu ko pur mais dissoudre benn dissoudre ab parti ci benn ci xëy benn bis rek dissoudre parti loolu ko gën a ci dictature lan la moo tax ma ne soxla may tudd ak di lim maanaam Sénat am nañ cër am nañ àq ak yelleef loolu mooy taxoon ñu créé ko mais juge Sabassy fay li taxoon ñu teg ko fa ñu ko teg muy àtte mooy lépp loo xamante ni yoon sant na ko mu def ko mu wax mu def ko wax ko comme ni ko ko yoon santee mhm. mais ba mu ko defee appliqué wuñ ko dictature daa weesu loolee te pouvoir am fa la mooy pouvoir pouvoir am fa la après Sénat nag moom am na pouvoir yu jéggi yi nga xamante ni moom la Saba si fay. ci mbirum euh, jébbal fils de parrainage yooyu mais ñu ngi sàkk ñu dégage ñoom itam seen ay responsabilité bi ma ak régime bi ma gis ñuy combattre ak Ousmane Sonko bu la dara bett ci seen digg ak Ousmane. voilà mais euh, li nga xam ne moom mooy ay responsabilité am euh, Sénégalais au moins dinañ xam que ne kat Sénat def na li nga xam moom moom mooy li ko war vu Saba si aussi def na li nga xam moom li ko war léegi léegi nag ñu bàyyi euh, ñi nga xam ñoom ñooy suñu ay gouvernant ak askanu Sénégal DGE ak askanu Sénégal léegi nag ñoom la dégg nekkatul diggante euh, maanaam Sénat wala juge Sabassy wala Ousmane Sonko mais dafay nekk diggante euh, suñu ay dirigeants ak sénégalais diggante DGE aussi ak sénégalais parce que ñoom DGE par exemple moom lépp loo xam ne si Sidiki Kaba tey bu taxawoon tag ne DGE joxul fi Ousmane Sonko daf ko koy jox. sans pour autant aussi mu teg ci li nga xam ne moom mooy gar kon moom ci tutelam la nekk loolu on peut comprendre que ne Sidiki Kaba foofu tamit euh, ministre de l'intérieur moo war a jël li nga xam mooy responsabilité wum euh, jëm ci loolu la parce que pour une première wala nga nekk li nga xam moom mooy ministre de l'intérieur ci sa maanaam sa jëf ju njëkk ñu gis ni kat lii ak lii am nañ violation de loi am na ci li ni mel kon mën na naa ne moom moo war a gën mën a jël li nga xam mooy responsabilité euh, bien avant sax Sénat di ko def pour que muy ndur leneen. awma ci benn yaakaar ci Sidiki Kaba ndax maa ngi ko dooree woon ca keroog jour bi nga xamante ni nommé nañu ko ma taxaw fi mhm. nee la lu ma yaakaarul woon ci Antoine Diome awma ñàkk jom gu toll ni di ko yaakaar ci eh, ki nga xamante ni mooy ministre bu bees bii nga xamante ni moo di Sidiki Kaba bu dee ci at yi awma ci yaakaar bu dee expérience bi ak fi mu jaar awma ci yaakaar beneen bi mooy moo gën a pur Antoine Diome parce que dafa yor carte membre APR yàgg di jongante di jonganteel APR mhm. politicien boo xamante ni nëbbul ak politique gëm kookee war a organiser ay élection man bu ma amee ñàkk jom gu toll ne maa ngi am yaakaar ci Sidiki Kaba non ku yebu bàyyi ma parce xam ne man dooma nit doonuma nit ku am jom olof nag dafa am lu mu doon wax mm-hmm. na sàcc ndënd yomb na mais foo ko tëggee mooy jafe mais ñi nga mm-hmm. ñoom jafewu leen xam nga lu leen jafe mooy tëgg ko nit ñiy fecc maanaam parce bu ñu koy tëgg dañuy jël seeni police ak gendarmerie. dëgg ñu wër leen. après ndënd yi ñu yor ko ca biir wut sécurité bu doy mu wër leen ak ay grenade mhm. après askan bi nga xam ne ñoo waroon a savourer di fecc ci tëgg ga ñuy tëgg. Mhm. askan bi ñooy taxaw ci ginnaaw force de l'ordre di sànnante ak ñoom xeer après ñoom ci moment yooyu la ñuy continuer tëgg seen tëgg. maanaam amuñu jom buñ ko sañ a waxee noonu amuñu mbañu rus buñ ko sañ a waxee noonu. Mhm. ci yi nga xamante ni moom lañ jàpp ne moom lañ mën a état bi fi nekk wala boog régime bi fi nekk dañoo pare pour seetal ci seen bopp donte la ñun buñ sañoon loolu mooy nekk non non parce que jàpp naa ne buñ pare woon pour seetal seen bopp président Macky bu pare woon pour seetal boppam ci élection yi ñu dëgmal que ne dafaa fexe ba élection yi doon yoo xamante ni kenn du ci taasal daram wala boog itam parcours am njort naa ne ba muy former gouvernement bu bees dina ca dina ca jëlaale ministère boo xam ne daf koy da koy teg pour que mu organiser élection yi te mu doon jëmm joo xamante ni donte dina jafe ci réew mi dañuy sentir que ne bokkul fenn wala boog féetewul fenn ba mën a organiser élection yu dëgg yu jaar yoon mais bu dee dafa ñëw tegal ñu Sidiki Kaba ne moo ñu war a organiser ay élection ci kanam ñu départ quelque temps acte yi ñu njëkk gis ci gouvernement boobu posé ko mooy premier ministre bi nga xamante nii moo waroon di dalal di apaiser dëgg la en nekk candidat ñaar yooyu est nit mën na ko boole mën nga nekk arbitre après nekk mbër biy bëree mënul nekk muy benn ñu gis euh, say étapes yu njëkk wala boog itam say acte yu njëkk mm. doon loo xam ne lu violent la muy yow ci sa bopp ci sa biir gouvernement yow en tant que premier yaa am foo dajee ak koo xamante ni kenn ci say ministère la. yu bokk sa biir gouvernement mu di Marie Xemes Marie Ngom Marie Xemes Ndiaye. Marie Xemes Ndiaye Marie Xemes Ngom. Marie bi nga xamante ni moo yor wàllu santé. santé Marie ci immigration bu fajukaay boo xam ne dañ ko doon def. Mm-hmm. say sécurité ñu yor sa garde. Mm-hmm. ak ñi yor gardem am fay jàppante ba bal jub fa. Mm-hmm. loolu jàpp naa ne ku jàpp ne loolu lu ñuy maanaam lu ñuy woyofal la lu ñuy bàyyi mu dem la. yaa ngi nax sa bopp loolu di lenn beneen bi mooy yow jëmm jooju nekk ministre intérieur ñu jàppoon wala boog itam premier ministre ñu jàppoon ne yaa war di apaiser. mais comme ci kasketu candidat candidat bi. Mm-hmm. nga dem ne da nga nekk ci tournée économique. en tant que premier ministre bu dee casquette boobu la dama jàpp ne da nga war di dalal mais ci moment boobu nga sentir que ne sa wet am na ñoo xamante ni candidat lañu comme yow bëgg def comme yow li ngay def muy nemmeeku askan bi dem ci askan bi wëri parrainage mais say njaboot xeñ leen ko. Mm-hmm. ci ndigalu. ministre de l'intérieur bi nga xamante ni moo war organiser ay élections. te mais mooy mais mooy ak di limiter ñi nga xamante ni ay candidats lañ ba pare a wuti parrainage. doguma la sax doguma la foofu noonu ci Mbour si waa benn bokk yaakaar ne mekku nañ fa ay échauffourée entre militant wu euh, Cheikh Issa Sall ak euh, si Ndiaye ba sax ñaari euh, quatre blessés dal nañ ci am bu sukkandikoo ci dakaar ak Chine moo daal di joxe boobu la information voilà. ñii mën nañoo organiser lu lu sa xel di dal. ñoo xam ne ñoom ci seen biir d'abord ñoo nekk benn. ñoom ci seen biir mënuñu organiser mënuñu organiser wu mënuñu organiser wu ba nga xamante ni kenn du xam seen ay faay. parce que mm. dëgg la cinq personnes sax fu ñu dajee amaana jàppante mën na fa am wala boo itam rek raj loo mën na fa am mais sans départ kilifa gën a dina fexe ba.